sëñ Ibrahima Soli jóge ba Casamance ànd ak délégation bu mag ñoo doon ziar Cheikh Mouhamadou Mountakha mi ngi fi jotaay ne war a teewlu xasida kon sëñ Ibrahima Soli soo doon wax tey li doon say tànk ak li tax a jóg lay doon. Ah, alhamdulilah alhamdulilah rabbil alamin suñu tàng mooy tey mooy damaa ñëw ak délégation di waa Suna Karantaba eh, dëgg bi yëpp dëgg bu mag la mais depuis l'année dernière. ñëw nañu ziare sëriñ bi ci mois bi mois de ramadan ci ci ci mois bi encore sëriñ bi <clears throat> pour ñu ñëw ziare ko tey ñu ñëw ziare ko mu recevoir ñu recevoir bu rafet ak sama délégation bi alhamdulilah ñëw nañ ak euh, monsieur le maire le maire de kii bi ak chef de village bi ak doomu imam ak kilifa yu bari ñoo xam ne am na ñoo xam ne ñu ngi fi. donc ñëw ziar sëriñ bi vraiment loolu moom ci sëriñ Touba alhamdulilah kontaan nañu lool lool lool lool parce que ñoom waa Karanta ba dafa bari murit am na ay ay ay famille religieux yu bari mais murit yi dañu bari ñoom dañu bëgg ci ci ci ci ci muridisme alhamdulilah lu mu dañ ñëw ziar sëriñ bi ñu ngi koy ñaanal yàlla pour mu yàgg fi lool mu ànd ak wér bu yaram kontaan nañu lool ñu teew l'année dernière lu si nii lañ meloon fii donc namm nañu fii bu baax a baax ñu ñu teew fii te ñu ngi loolu ki loolu sama olof bi setiwul mais su fekkee mën naa ci wax tuuti olof eh, soose alhamdulilah sëriñ bi tuur bi bàyyi daam ña maa mbi kontoon na fanfan ntoy ntoom ibrahima sorilati mbaɗanan suna karanta ba nen délégation mbanata kana kana e, e calife général o gr même si muntaga kana siare ñin cango min tambita sunkaro min tambita fana nata ka siare jang nata kana konto nga nga tara yem buña jamba ke ñinam fana kana gr kana ala sukar koro danda ka duwa e farata la sa simaya ali ya jato kende ya abe du ko ñimma min ah, liggéey bu nekk ci Sénégal ak ak ak aduna bi yëpp pour yàlla mu seen si Mountaga mu yàgg fi lool mu e, mu mu mu ki liggéey boobu mbe du alaye fatala salawo dow ko aya timmande ku kayrala alaya sima jaato cendeya mbe ñin kafo mi yalon ko mbijanten kontaan ta baaki ñun kontaan nañu lool ci teew fii alhamdulilah su noo jàngatal léegi ñoom ziar bi ñu fi ziar si mhm. ak yow it sa jàngatu bopp ci bi nga ñëwee ji jotaay bi lan lay doon Euh, aouzu billahi min asheytaani rajim wa inni aouzu bika wa zuriyataha min asheytaani rajim rabbi aouzu bika min hamazaati shayatin wa aouzu bika rabbi an yahdurun bismillahi rahmaani rahim ñu ngi leen di sant bu baax euh, di leen jaajëfal ci kàddu gi ngeen ñu jox di wax na rek euh, lii moom dafa doon tawféex lool tey ñu am tawféexu ñëw di dund ak sëriñ bi maanaam nii nga xam ne nii la koy doxalee ci weeru koor ma ànd kook suñu mbokk yi nga xam ne Euh, ñu ngi jógee ba dëkk bu ñuy wax ba ca région de Sédhiou euh, ñëwoon fii maanaam di ziare sëriñ bi ndax euh, ñoom yàlla daf ma booleek ñoom depuis lu toll ci ay at ba ba daaw suñu borom dogal ñu jaar sama loxo ma jaar ci sëriñ Fallou mu sëriñ Sa Basirou mu doon suñu interlocuteur suñu diggante ak sëriñ bi ba yàlla dogal ñoom ñu doon ab communauté mouride doon ay soose nag yàlla dogal ñu ñëw ziyaare si woon sëriñ bi di ko yëgal seen bis boobu nga xam ne at mu ne dañ koy def ci Karanta ba sëriñ bi dalaloon leen bëggoon ci lool ba ba waxtu wa jotee mu yabaloon ab délégation jëloon ma boole ma ci boole ma ak sëñ Fallou moomu ñu demoon teewal ko Karanta ba ren aussi bis boobu di dellusiwaat ñu ñëwaat di ko yëgalaat sëñ bi di ko def noonu ñëw ba ziyaare sëñ bi sëñ bi it gannaaw bi ñu dalalee ba noppi. daan ñuy euh, defalaat tawféexu euh, mën ñoo dugal ci barab bi ñu mën a dund ak moom njàngum xasida mi ci ci ci ci bisu ci bis bi tey mu doon loo xam ne wax dëgg yàlla tawféex la goo xam ne yëg nañ ko lool bëgg ci lool it mu doon loo xam ne lu rëy la ci ñun waaw lu rëy la ci ñun te sant nañ ci nag bu baax a baax di ci ñaanal sëriñ bi it mu mu gën fee yàgg lool gën a wér ci barkeb Cheikhul Khadim ñu ngi ko koy ñaanal bu a baax a baax a baax a baax.